Rapido innove et lance son sticker prépayé. Rendez-vous à l'espace client de Cambérène pour vous le procurer. Info Line 33 859 1685. 85. ak Jaouda Dal, suñu santé day gëna baax Jaouda mom la tamu fepp ci aduna bi. dom ji tudde na vite fait mosquito. ak gamu vite fait tan sa bu la neex la cuuraayu bant buy pompe bu AIBD AIBD AIBD AIBD sponsor engagé dans le football. Bâtissons le futur. Jimoka, c'est du café d'exception, rien que pour vous. Jimoka. Mmh. Extrait café. bu ngeen bëggee passé commande ngir jot ci probio naturel aldebi wala bok probio naturel simpi da ngeen ni joko ak ñun ci 78 524 76 76. Amna ananas amna banana. coco pino mango ñun de dañuy la fraîche daal. macha allah. seen boutique solution ci njiital alhaji sanjogu mbeng ak soay bu jox ngir deugal ak wéral ni suñu garabi ciosan yi lu wér la su ngeen bëggee dégg dëgg dal ba boutique la solution juddo la jaay garab yi bon ak naxaata jeex ak madame oxygène plus bu bees bi seen bu bees système la mais ak suñu góor mais wax leen ak Mais, mais, mais mais mais sa bët yi lan moo ci nekk lan moo ne sa bët yi bal boo xamante ni ne xool nii boo sigee benn yoon da nga koy jël gis nga direction bal bi yow nii mën nga jàkkaarloog seen bal baa ngi ñëw boo sigee xam nga xam nga fu ñu koy jàppee mais ngay xool ba bal bi rëcc la. oh. kurti loolu laa bëggoon a wax sax ah mais dafa yomb trop ah. yow mel ni non na dafa yomb trop waay ah. mais eh, gars yi sunu góor di bàyyi leen ko waay mais laa bi leen ko biir ah. dama ne ponse borom jooy mën naa doj jooy dëjëm bàyyi ma ak ñoom rek dégg nga sa yoon nekku ci noppi ak ma ñoom rek. coach coach kii nañ ko jël yóbbu ko fan ni ñëpp noppali ko. mais mais lan la lan moo tax ñu ko yóbbu fan. kët kii ne ko yóbbu hôpital xool li nekk si yaramam quoi c'est doo ko def. ñu def de. ñu def erreur de kii bu ñu ko yóbboo hôpital Fann léegi ñu téye ñu dafa am feebaru dof ñu fan la ñuy jëlee góor. fan la ñuy jëlee góor. ah. Hmm? non gars yi ko war a nag. c'est vrai def na erreur mais da ko war a encouragé. leen dal ci kaw. mais yow coach si yow wax mais yow yaa njëkk commencé ruube bi danaa ma wax yow waaw yow yaa ma commencé ruube ngay am na lay jékki-jékkal bi waaw yow ku ruube quoi yow. coach arrêté ruube wuloo wax pour ñun ñëpp lay concerné. du yow kese la koy wax. loo bëgg yow. tol yee dama bëgg nga tëj sa gémmiñ ma la wax. yow a dugal benn bit. coach tu yaa ngi dëgg luy.

onon onon maa ngi la. lan la. sa pied gauche moo gën a ceene ko pied droite parce que yóbbu nga sama pied gauche bëgg a yóbbu droite bi du mën a nekk bu fekkee dañ laa digal ay saraxu tànk du du yii pikiru ma per jëlal sa bagage. jëlal waa yow jëlal sa bagage. arrête ça arrête ça jëlal sa bagage. va nous chercher de yow ki ngay pikiir jooyul yow nga bëgg a jooy. kon cela veut dire que yow li ngay pikiir xam nga ko. va nous chercher de l'eau à boire allez-y. de l'eau c'est bon c'est de l'eau yow li ngay pikiir jooyul yow mi ngi ngay jooy. va nous de l'eau de l'eau à boire. hey hey hey passe par Ben, ah, ah, Rapido innove et lance son sticker prépayé. Rendez-vous à l'espace client de Cambérène pour vous le procurer. Infoline 33 859 16 85. ak Jaouda dal, suñu santé day gëna a baax Jaouda mom lañu ñu taamu ci aduna bi. Dom ji tudde naa ko vite fait mosquito. ak gaamu vite fait tan sa bu la neex la cuuraayu bant buy dàq pompe bu AIBD AIBD sponsor engagé dans le football. Bâtissons le futur. Jimoka, c'est du café d'exception, rien que pour vous. Jimoka mmh, du vrai café bu ngeen bëggee passé seen commande ngir jot ci probio naturel al aldepi wala bokk probio naturel simpi da ngeen di jokkoo ak ñun ci 78 524 76 76 am ananas am na banana coco pino mango goyave ñun dañuy la fraîche daal macha seen boutique solution ci njiital alhaji sanjogu mbeng ak soay bu jox ngir deugal ak wéral ni suñu garabi ciosan yi lu wér la su ngeen bëggé dégg dëgg dal ba boutique la solution juddo la jaay garab yi bon ak naxata jeex ak madame oxygène plus bu bess bi fen bu bess système la